mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax a baax ci 30 minutes chrono comme ni tàmm di ko defee saa su bu alxamis jote 21 heures ci solution info TV di leen nuyuwaat bu baax di nuyu El Hadj Modou Diouf Abdou Top Ablaye ak Fallou ñi nekk ci régie bi di leen nuyu di leen gërëm bu baax Omar Bun Xattaab gi nekk ci kàddu gi ñu fas yéene nag tey jii dellu si ñëw wax ci actualité. actualité bi nag bokk na ci dogalu président ci jële fi au conseil des collectivités territoriales ak li jëm ci conseil économique social environnemental dinañ ci wax wax ci politiquement lan lañ ci xalaat ni nguur gi moo tax mu bëggee jël dogal yooyu dinañ wax aussi tamit ci li ñu jàngat ci sunu xel ak sunu xalaat mooy autorité bu ñuy défier autorité bu menacé wu Sonko Diomaye nekk ci front yu bari depuis que ñu falu 4 mois 5 mois ñu gis ni rek luñ jugee dañuy dal ci lii ba léegi li naan jub jubal jubbanti mais am na ay forces de résistance ñoo xam ne ba tey jii ñi ngi bañ ni anti système bi kenn du ko fi teg lan moo waral loolu nag ak foot bi ci kan la. ci ñoom la wala ñu ngi ko séqal mais dañ koy njëkkee rek ci mbiri HCCT ak conseil économique social environnemental comme ni nga ko waxee ni dañ ko fiy jëlee digga bor la parce que dañoo gis ni ay institution la yoo xam ne dañ fee nekk di jural réew mi alal ju bari te gisuñu alal ju nu indil réew mi wala lu nu defal réew mi loolu tax Sonko ak Diomaye balaa ñuy falu ñu ne ñoom ci seen programme bu ñëwee dañ koy dindi lu tax ñu war ko dindi mooy alal ji ñuy def foofu xaj na feneen te ñan fa tekk du lenn lu du politique politicienne te loolu ñi ngi koy nemmeeku ci ginnaaw bi Abdoulaye Wade ñëwee ak Macky Sall mais kuréel yu ci mel ne conseil économique social noonu la tuddoon Famara Ibrahima Sagna jiite ko daan nañ gis rôle yi ñu daan joué ci jamonoy parti socialiste muñ gis ni tur boobu tey ji ñi nampatal tuuti ci politique Sénégal xam nañ kam mooy Famara Ibrahima Sagna ak njariñ lu mu amoon ci réew mi mais bi régime libéraux yi ñëwee lan sentir ni bari na ay médiature ay conseil économique sociale yooyu yëpp dafa nekkoon ay kuréel yoo xam ne danoo amoon njariñ mais biñ ñëwee ci régime libéraux yi ci mel ne Macky ak Ablaye Wade politique politicienne mais aussi tamit mu doon foo xam ne dañ fay recaser les politiques parce que buñ mosaan di falu dañuy fal ñëpp mais am na ci ñoo xam ne du ñàkk seen jàng bënnul wala ñu leen fal ci yenn post yi ñu doon yenn militants yi ñaxtu yi ñu ne kat de nan am fu leen làq denc leen fa ngir ñu mën di for dara maanaam ne am na ñoo xam ne sax daawuñu liggéey mais fayee ko day jot rek ñu dem fayee ko ci au conseil wala conseil économique social environnemental wala ñu xool koo xam ne mer na ci politique wala kun bëgg a récupérer ci politique ñu dénk ko ko parce que bi ñu demee ba Mimi Touré ñëw nekk premier ministre ñu wàccee ko te mënuñu ko jox leneen parce que wolof dañ ne ku war ñey wàcc ko loo yéegaat day tuuti ñu defar conseil économique social environnemental ñoo dénk ko Mimi Touré politique lan ko fa tegee woon politique moo tax ñu dindi ko parce que benn jamono récupéré nañ Idrissa Seck mais Idrissa Seck il faut que ñu jox ko loo xam ne te dafa méngoo ak dayoom ndax mënoo ko def ministre mënoo ko def dara léegi képp ku ñëw da ngay ñëwaale ak say nit Mimi ak ay nitam. Idrissa Seck ak ay nitam Abdoulaye Daouda Diallo ak ay nitam maanaam foo xam ne dañ fay recaser ay politique di leen fay loo xam ne liggéeyaluñ ko réew mi bu doon ni li leen di fay dañ koy liggéeyal réew mi sax mu baax parce que bu nekk conseil économique social environnemental ci wàllu koom ci wàllu économie ak ci wàllu environnement nan nu wan ban rapport la ñu mës a defal boo xam ne ci lii lijjanti yenn jafe-jafe ci wàllu koom social ak environnemental la gisuñu ko ñu ñëw ci HCCT Aminata nga njaay jiite ko ñu jël ay nit teg leen fa di leen fay ñuy jariñoo réew mi te jariñuñu réew mi dara ci wàllu decentralisation lan lañ ci def parce que HCCT ñu ngi ko créé ginnaaw bi ñu defee acte trois décentralisation acte trois bi li ko taxoon a jug ñu bari xam nañ ko ak jamono juñ fiy jëlee région yi di indi département yi mooy xeex xalifa Sall bi yoroon ville de Dakar pour wàññi ay dooleem ñu teg ak trois acte trois boobu moo ñëw indaale au conseil de collectivités territoriales bi mu ko indaale mais tey jii bu ñu ko doon xayma ci ay at lan la au conseil boobu jëriñ Sénégal lu dul ay nit nekk fa di fayeku te liggéeyalul réew mi dara Sonko ak Jomaay bi ñu ñëwee. ñu ne dañ ko fii dindi ndax ñoo ko digg woon waaye te gisuñu njariñ li xam ne mbir sax mën nga di ko dindi ba si àgg nga ni ah ñun de danoo yaakaaroon ni parce que la réalité di pouvoir mooy boo jotagul ci pouvoir nga yàkk yaakaar ni lii baaxul lii baaxul lii mais mën nga ñëw ba ci biir gis ni lii am na njariñ nga bàyyi ko fi mais looloo tax ci haut conseil ak conseil économique njariñ li mooy problème bi du nekk bi ñu fi nekk parce que ña fa nekk di fay ay doomu Sénégal la liñ daan am yéene na leen ko ña ko jiitee liñ daan am yéene na leen ko mais la fait que ñu war leen fa bàyyi pour lan pour lan c'est un problème pour sañoon benn Sénégal du ñàkk liggéeyam benn Sénégalais du toog di jooy boo xoolee li waa sàmb jiite woon ko dialogue des territoires te njëkk ko dindi mais dialogue des territoires xamoon nan lañ ko créé danoo ñëw 2012 Macky falu bëgg un Djibo Leyti Kane dem si yàlla gi ñu ngi koy ñaanal fekk si ko mënul def Djibo Ka leneen ñu créé dialogue des territoires ñu bari danoo foog ni dialogue des territoires Benoît Sambou moo ko yoroon mais dañ ko defaroon pour mën a permettre Djibo Leyti Kane mu jàpp ci dara mais defuñu koon pour dara mais c'était juste pour permettre à Djibo Leyti Kane mu jàpp ci dara au conseil lan moo taxoon ñu créer ko mais Ousmane Tanor Dieng jàppale na leen jàppale na leen ba ban fragiliser xalifa Sall il fallait que ñu récompenser ko nga ñëw ci conseil économique social environnemental la même chose <coughs> la même chose njëriñu Sénégal nekk ci woon lu dul politique jox nañ ko Mimi Touré pour bañ mu mer. ñu bëgg a neexal sa Seck nangu ko ci Mimi ginnaaw gi ñu jox ko Abdoulaye Daouda Diallo parce que premier ministre la doon xaar wala président assemblée joxuñu ko pour bañ mu mer ñu teg fa Abdoulaye Daouda Diallo amul lenn lu ci njariñu Sénégal ku ko xam na ma ko wax yu mel noonu nag pour être sérieux boo nee jub jubal jubbanti mais li jekk mooy nga dindi ko mais bëgguñu tamit nga defee ko ni ko Macky Sall defoon dindi koo ko dindi fi Sénat di sóob quoi dindi fi Sénat de parce que ay inondation ñoo amoon mais après bi nga dindee Sénat lu yées sena nga indi lu yées Sénat nga indi pour recaser la clientèle politique parce que da ngay dem ba jamono pour gagner des élections il faut nga def politique politicienne looloo tax ñu bari ñi ngi poser question naan au conseil bi lu tax ñu war ko fi jëlee. ak conseil économique même buñ ko fi jëlee léegi lan lañ fiy teg am na ñuy poser question yooyu mooy buñ ko fi jëlee est-ce que ñoom duñ dem ba ci biir teg fi leneen parce que gisoon nañ Abdoulaye Wade bi mu fi jëlee conseil économique social li mu fi indi woon mooy CRAES conseil de la république pour des affaires économiques et sociales Mbaye Jacques Diop jiite woon ko bi ko Mbaye Jacques Diop jiitee ba Abdoulaye Wade xëy meroog Mbaye Jacques Diop Mbaye Jacques Diop mooy nettali Abdoulaye Wade dafa ñëw na Mbaye Jacques mun ko delloo ma sama CRAES maanaam Abdoulaye moo mel boppam la ko defoon quoi mooy wane ni amuñu njariñ léegi nag ñi naan Sonko ak Diomaye jëlee na bëgg nañ ko fi jëlee léegi lan lañ fi bëgg a teg ñooñu mooy ñi jàpp ni sonkook jomaay ak ñi fi nekkoon ñoo yam te ñun liñ jàpp mooy Sonko ak Diomaye yemuñu ak Macky yamuñu ak Abdoulaye Wade yamuñu ak Abdou Diouf parce que bokkuñu école bi ñu génnee ñee ci école Machiavelli lan génnee mooy leen des pratiques machiavéliques maçonniques pour ñoom politique njuy la mbas ak naxaate Abdoulaye Wade waxoon na ko fi ne nee na les promesses politiques ñi mu engagé mooy ñi ko gëm maanaam li ngay diggee ci politique ku ko gëm affaire am la maanaam mun nga digg lu la neex boo faloo def leneen mais ñii yaakaaruñu Sonko ak Diomaye dox ci tànk Abdoulaye Wade wala abdu Diouf wala Macky Sall kon gëm nañ ni buñ fi jëlee lii duñ dem ba biir ñu ñu jaare ko ci bunt bi jaare ci fenêtre bi indi leneen ñun gëmuñu lool parce que nag li gënoon a yomb mooy bàyyi fi conseil économique bàyyi fi haut conseil bàyyi fi dialogue des territoires mais rek caser fa say nit caser fa say nit parce que tamit dafa am benn clientèle politique boo xam ne il faut nga koy suuxat il faut que nga koy nourrir il faut nga ut foo leen dugal parce que bari na ñi xeex ci projet bi mënuñu nekk ministre ñu nekk directeur mais fu mel ne au conseil collectivité bu doon ñoom dañuy politique seen rek dañuy naxante ba bàyyi ko fi mais boo gisee ni nu formé gouvernement bi ni ñu tegee direction yi suñu yaakaar dafa egg ci ni ñoom li ñuy def. danga ko def la maanaam la parti la patrie avant le parti maanaam réew mi lañ jiital ak njariñam mais jiitaluñu seen parti parce que bu ñu jiitaloon seen parti seen parti day gën a fees ci gouvernement bi <coughs> bu ñu jiitaloon seen parti seen parti day gën a fës ci direction yi kërëb kërëb loolu tax yaakaaruñ ko beneen bi ci topp ci au conseil bi ak tas ki ñu koy tas lu tax ma jàpp ni dañ leen dañ ko war a tas mës naa ko wax ci assemblée nationale mooy assemblée dañ ko war a tas mooy bàyyi fa Amadou Mame Diop mu nekk la deuxième personnalité de l'État tey jii bu ñu demoon ba am poste vacance au pouvoir wala ngant am ci njiitu réew mi ne Amadou Mame Diop mooy doon président Sénégal par intérim te ku xam Amadou Mame Diop ak ay pratique ak ni mu jagee Macky Sall ak nitu Macky Sall yi nin doxalee ak nguur gi ba nguur gi sosoo ak tey ji ñooñu du leen bàyyi ñi wéy di jiite assemblée erreur la kon tas assemblée dafa dagan parce que wóorul ñi xam ne da leen indi loi d'orientation budgétaire wotewuñ ko xañ ci Sénégal lu bari ñi xam ne nu mu gën a ñaawee noonu lañ koy defee ñi xam ne yéenawuñ Sonko ak Jomaay jàmm ba heure bu ñu xëyee génne ay xibaar ci ni nguur gi ña ngay xeex ca pale ba ñu ngay xuloo maanaam di dem ci ay sëriñ di ñaanloog fu nañu dugg fa ngir dëddale Sonko ak Jomaay jaral na leen ko parce que li ñuy wax ci suuf mën na am ñu ngi koy jëf ci suuf kon ñooñu di leen bàyyi ñiy wéy di jiite assemblée nationale wóorul kon tas assemblée dafa dagan beneen bi ci topp mooy le président de l' assemblée presque moo la Macky Sall dénk parti bi kon sur le plan politique Amadou Mame Diop dafa mel ne mooy jiite APR nga jël ay fonds politique wala fonds secret jox ko ko parce que président assemblée day day am dooley président presque day am ay moyens te politique ay moyens koy def nga war a dem législatif dem local di bàyyi Amadou maam Diop ak ñoom Abdou Mbow ñu ne di am ay moyens politique li Waly Diouf Bodian doon wax xam ne peut-être da ko wax mu droit mais ci xel bàyyee leen yenn postes yi wóorul ñu am xaalis. di dimbali seen base di leen jàppale di am ay pexe ci wàllu politique ba élection ñëw fi mën na la bett mën nag politiquement lay wax beneen bu ci topp ñu ne la troisième personnalité de ñu ne la Abdoulaye Daouda Diallo ñu bari jàpp ni tey ji bu fi Macky Sall jóge woon moom la ñuy dénk affaire kooku di Abdoulaye Daouda Diallo nga bàyyi ko mu jiite conseil école maanaam HCCT non non conseil économique social environnemental yor ay moyens yor ay fonds politique recaser ay nitam dugal leen ca conseil ba di leen fay weer di alimenter base politique am mi gën a dëgër jamono jooju waa Pastef yi dem taxaw ne la di xaar nga war a dem élection ak ñoom di leen bàyyi au conseil ak conseil économique loolu risque la kon tas ko day dagan politiquement dañ ko war a tas yëkkati budget jox leen budget boobu mais budget de guerre la rek dañ la koy guerre politiquement parce que amulul njariñ réew mi nga ñëw ci Aminata Mbengue Ndiaye ba tey mi ngi bennoo bokk parti socialiste tey jii waa PS malgré que Ali Aminata Mbengue Ndiaye yaramam neexul mais ñu bari nangul nañ ko te ñu ngi ci ginnaawam lan la parce que dafa yor budget de guerre mooy HCCT ay nitam nekk fa nangul ko mais tey jii boo ko jëlee ci HCCT mu naam bu amee at pexe parce que la taxoon ñu koy topp nekkatu fa kon Sonko ak Diomaye wax naa ko ci tàkku show danoo war di politique léegi danoo war a tàmbali di politique parce que nag politique moo leen fi teg mais danoo war a politique mun pour mën a téye seen nguur gi parce que la conquête du pouvoir bokkul ak exercice du pouvoir maanaam ut nguur ba jot ko yomb na mais nan lay téye nguur moo gën a jafe li gën a jafe moom la Sonko ak Diomaye di dund jamono yi kon looloo tax ñu ànd ci politiquement tas gi ñu war a tas au conseil tas conseil économique social environnemental tas euh, assemblée bi léegi nag ñu war a gouverner projet bii gars yi naan ay naxaate la rek ñu war ko teg dérouler ko doxal ko ñu xool nag ma naari naari naar yaa ngi ñu xool lan la projet bi di wut mais mënuñu doxal projet bi te institution yi gën a rëy ci réew mi ñi gëmul projet bi ñoo ko yor da leen di gàllankoor da leen di faxasal teg ci sax budget bii ñuy wax naan ni bu ñu fi bàyyi asam mën nañ ko wote mais lii ballon de sonde la tas HCCT tas conseil économique ballon de sonde la pour ñu xam fa la ñu gars yi jëmee le gouver le président peut gouverner par ordonnance wala budget bi ñu fi bàyyi mun na ne di ko dérouler mais bàyyi assemblée bi ak conseil économique ak HCCT nga bàyyee ko la majorité de l'opposition ñu kon ne di am moyen di am doole seen leader yi ci mel ni Amadou Mame Diop ak Amadou Aminata Mbengue Ndiaye ak Abdoulaye jàll kon continuer di am ay moyens wóorul wóorul léegi ñu dikk ci beneen point boo xam ne ci titre bi. wax nañ ci mooy autorité bu ñu menacé wala bu ñu défier fragiliser ko mën nañ ko tuddee nu ñu neexe mooy Sonko ak Jomaay ban soso falo ak tey jii gars yi may ñu leen jàmm gars yi bàyyi ñu leen ñu liggéey lu ñu mën ak lu ñu mën ñi ngi koy def pour que ñoom duñu doxal te loolu gis nañ ni une certaine presse am ci liggéey presse ak ay nit yu ñu dooleel ci réseau sociaux yi pour que ñu mën a déstabiliser le duo Sonko Diomaye mooy fépp foo xam ne Sonko ak Diomaye danoo wàqi ñu suul te loolu li ko indi bokk na ci Sonko ak Diomaye taxawaay ak doxalin yu ñu am gëm république bëgg a indi ay rupture bëgg a jël seen temps ci yenn yi mooy le temps de la justice parce que tamit heure bi bu ñu nekkoon comme yeneen nguur yi fi jaar heure bi genn wàllu APR ñi ngi ci kaso bi wala ñenn ñu ñu tudd ci ay aéroport ñi ngi ci kaso bi mais ba tey jii dangay ngay sentir ni du kenn ku nekk ci kaso bi dangay ngay sentir ni gars yi ñu ngi dox seen soxla naam sax ñenn ñi seen xal dalu seen naram neexatul ñu mel ne Lat Diop loolu nag Sonko ak Diomaye def c'est un couteau à double ndam a ngi ci gàccee ngi ci parce que liñ doon bañ mooy ñu ñëw rek ñu ne dañuy fayantoo kenn waxul fayantoo waaye li leen yoon may dañ ko war a def te man ma gis ni li leen yoon may ñu war ko def dañ cee yéex loolu yéex nag laa ci gis te bukki bu yabee waxambaane ca doxin wala mais gis naa ni cër bi leen war a jox des na respect bi des na te loolu li ko indi mooy danoo falu nan non dañuy defar justice bi dañuy teg pôle financier def ay réformes yooyu yëpp lu baax la mais le temps de la politique dafa am mais le temps de la justice le temps de la justice mën na yéex mais le temps de la politique moom day gaaw foofu nag ñu gis une stratégie boo xam ne opposition bi da ko def mais une stratégie payante boo xam ne da ko def parce que bi Sonko ko Diomaye faloo presse bi leen gis ñuy dóor mais bi ko ñëwee dem grand théâtre gësëm xam moom tam ndaanaanu politique la bi mu gësamee gars yi laqatu woon ci ginnaaw presse bi génn commencé feeñ ci nga dégg Thierno Bocoum dégg Bougane dégg ay Thierno Alassane Sall dégg ñenn ci ñi fare ci APR te làqatu woon ñu gis Alioune dooy dem ci télé yi Abdou Mbow ñeneen ñak ñeen commencé di génn loolu nag stratégie politique la bu baax bu Sonko defoon bu baax parce que bu yëngalul woon kuuy mun na di ñëw mais doo xam kenn mooy yónnee kuu yi te politique des li ciy baax mooy nga xam sa adversaire pour mën a jàkkaarloo moom mais la presse du adversaire wu pouvoir bi maanaam du du adversaire pouvoir même bu nekkee adversaire sax ñu ko nangu ñoom waruñu ko nangu bi loolu amee léegi erreur bi sonk ak Diomaye def yéexaay bi ñu gis ni ci ñu waroon def reddition de comptes gis nañ Fadilou Keita génn ñu gis le gars du port euh, Bodian Pape Alé Niang bindoon fi ni mbir yi dafa war a gaaw ñu bari def ci ay commentaire mais gaawaay boobu xamul tax mu baaxoon bu gaawoon un Lat du fi nekk di lappi-lappi Lat Diop nekkoon na fi le directeur de l'investissement ñu bari Lonase la nga ko xamee mais avant Lonase fi mu nekkoon moo gënoon a neex gën a dox te bu nee directeur de l'investissement mbiru xaalis la mbiru investissement la ñu jëlee ko fa ñëw na Lonase nekk na ministre nekk loolu mën ci doon au début nee na tekk mais erreur bi ñu def mais ñu xool loo xam ne lu ñàkk fayda la ñu woo ko ci may ko mu am fit lu ñàkk fayda benn nit tudd na ko ay milliards ñu woo ko gendarme parce que pour man bu ñu demee ba di la woo dan la war a woo ci lu dëgër dan la war a woo ci lu dëgër dañee public la la dénk mais li naan ku mën sa xuloo yab la woote bàyyi woote waat bàyyi watewaat bàyyi moo tax waa ji day dem ba benn jamono day bajantu ko moom xam na li mu def xam na fu mu jaar xam na liñ ko dénkoon baax na wala bon na ci LONASE ministre des sports wala directeur de l'investissement mais léegi day contre-attaquer la meilleure façon de se défendre c'est d'attaquer nga gis Lat Diop attaqué téye ko ci aéroport bi wàcc na attaqué pour man bu ñu demee ba di leen jàpp da leen war a jàpp ci fulla mais jàpp leen bàyyi leen jàpp leen bàyyi leen jàpp leen bàyyi leen même boo jàppee du safe looloo indi tey nga gis benn commissaire Keita mën a génn di wax yu kenn xamul ñu xam la présidence de la république ni mu sacrewee nga naan fa premier ak président da doon xeex xam nga wax ci ñu bëri comédie lañ ko def mais ce qu'il a dit c'est grave la le président yi est tellement protégé que daf ci am yoo xam ne mënul sax nekk ba nit di ko xalaat bu doon sax ñu ne. réunion politique la wala dara mais à la présidence de la république yabel googu ñu yab leen balaa loolu gis nañ fi ku mel ne baa Diakhaté ñeneen ak ñeneen ñëpp ku ne ñëw indi dara gis nañ fi amat Suzanne Camara yab googu ñu yab nguur gi nag nguur gi daf ci am wàll parce que ji nga Macky sàll mën nga ko reprocher lu ne mais dafa am caay-caayu politique ji nga Macky Sall bi mu njëkkee fal waa PDS yi Bara fu mu toog saaga ko amatu Sall fu mu toog saaga ko keneen keneen daf leen leen lijjanti teg nee ay Toussaint Manga teg nee pour mën a dérouler ji nga boo xoolee mandat bu njëkk bi Macky Sall mais Macky Sall waa PDS teguñu ko woon fenn bi muy doog a falu dañ ko jàppe ak xuusmaa ab seer ba ko jàppee ab fowukaay nguur gi nag buñ bëggee dérouler doxal benn li may wax assemblée bi da nga koy récupérer mais aussi li ñu war a def ci reddition des comptes dañ koy def. pour mën a teg seen nguur pour mën ko doxal nguur lañu yor nguur di nga nguur amul sentiment mais dama sentir ni danoo sentimental de trop te sentimental boobu mooy indi l'opposition se renforce mais aussi di gagner en confiance parce que fii ku jubul du am fit mais bu demee ba ki jubul bëgg am fit dañ ko may fit dañ ko may fit léegi nag loolu mooy ibbi bunt yu bari benn Bougane mën a bind benn poste pare génnaar ci wax lu ne Ousmane Sonko keneen ak keneen nekk nañ am politique danoo war a am opposition mais daf ci am yoo xam ne nekkatul opposition nekkatul opposition leneen la yabel kase la mais aussi fragiliser leen te bis bu leen bis bu ñu nangoo ba ñu fragile fragiliser leen ñàkkal leen fayda ba seen dayo wàññeeku ba autorité bi leen nit ñi doon xoolee dañ réew mi duñ ko mënati yor fi laa la ko looloo indi une certaine presse nguur gi dem màggal Sonko def ci Sonko def lu mës a am ci màggal maanaam daan gis président dem kër xalif bi dem jumaa ja cérémonie officielle ñu toog mais mu ñëw bépp kilifa bu nekk Touba ci ñi ci ëpp Sonko teg na fa tànkam mu doon acte politique boo xam ne maanaam gars yi daf leen a duma politiquement parce que loolu moo xawoon a manqué gars yi daan nañ di gis sëriñ bi mais dañ ci daan yam alors ko politique à Touba ak li Touba defal nguur gi ci élection yi dafa jekkoon nga jaar fu ne masawu ku ne mais aussi gërëm ku ne ñaanal ku ne sàkku ñaan ci ku ne acte politique boobu nag dafa rey gars yi ak na fa jomaay demee su ko demee ko fa mu doon ndam ak les réalisations à Touba malgré que presse bi ñu ngi doon ndox fii ndox fii mais boo eggee à Touba da ngay sentir ni la réalité mooy en cinq mois nguur gi def na fi dara sëñ Bass Abdou Khadre ne ñii sax buñ fi deful woon dara ñu muñal leen ko ndaxte ñeenti weer munoo ci def dara ñu dem génn leen ab lettre ñu ne non sëñ Cheikhoum naa Mbacke moo ko bindi mais au début lettre bi liñ ñu ci doon njëkk wax mooy comité d' organisation màggal gi ñoo rafetluwul seen gan yi jugee woon ci dëkku naar yi ñëw ñu war leen a héberger King Fahd Palace héberger wul leen parce que directeur des moyens généraux de la présidence moom moo bañ bi coow lu bare ñu jubbantiku ñu ne non du comité d' organisation màggal gi moo ko bind. mais kenn ci ñoom ñu naan ko Serigne naa Mbacké doon doomu sëñ Baara bi fi nekkoon xalif général moo ko bind parce que fa amoon ay ganam yu mu bëggoon ñu dalal leen ñu gàntu leen kon comité d'organisation bi moo ko bind ak Serigne naa moo ko bind loolu beneen mbir la te bi mu koy bind ci information yi am secrétariat général du gouvernement la ko bind mais bu ko bindee la secrétariat général du gouvernement ci gëstu yi def mais secrétariat général moo ko bind waaye bi ñuy tontu Cheikh Omar moo tontu mais kayit bi mun nañ ko bind secrétariat général du gouvernement mais secrétariat général du gouvernement affecté ko Cheikh Omar mi jiite direction boobu jëm ci moyens généraux de l'État mi ngi mel ne ab kayit ñëw fi kayit boo xam ne affaire technique la. ñu jox ko Sanjoogu exemple laay joxe Sanjoogu du technicien xool kayit bi gis ni ci Moodu la jëm mais comme Sanjoogu mooy bunt bi Sanjoogu woo Moodu na ko kayit gi de ci yow la jëm dan ko jaarale ci Sanjoogu mais Moodoo ko moom parce que Moodu mooy technique bi Sanjoogu xamul dara ci technique nga dégg ci presse bi ñu naan binuñu comme yu tontu waaye kayit gi ci moom la jëm parce liñ soxla loolu Cheikh Omar moo ko jiitee mbir mi jur coow am na ñu ne waa ji Koweït lan ambassade la woon ñu dindi ko mer yooyu mais yooyu ay détails la loolu liñ ci jubluwoon mooy màggal gi ndam li fi nguur gi am ñu yàq ko ñu gis une certaine presse ñëw jël document bi utiliser ko rajo utiliser ko télé def ci tole taj taj yemuñu ci loolu information lañ joxe loolu c'est pas grave seen liggéey la mais dem ba jël jëmmi Cheikh Omar Diagne di ko vaar ay wax yi mu waxoon ñaari at ci ginnaaw ñetti at ci ginnaaw wax yi ku ne mën ko interpréter nu mu la neexee wala nga déggee ko nu mu la neexee parce que nee na day xeex tarixa yi gëmu leen te sax am na ñu ne Cheikh Omar Niassène la mais yooyu man du mu ci considération yi du mu ci dugg gëmu leen. mais pour pourquoi ñu jëli waxi démb yi Cheikh Omar ñëw teg ko parce que bëgg nañu jot ci sonk ak Jomaay mais mënuñu jot ci ñoom te wala fi dañ ne ki lay te mënu laa jot day xool ci ki gën a jege mu jaare fa mi ngi mel ne ñi bëgg a dal ci Jomaay ci Sonko la ñuy jaar mais ñi bëgg a dal ci Sonko ak Jomaay danoo xool la maillon le plus faible parce que Cheikh Omar ay wax waxi démbam da kaa dab mais ba mu faloo tey jii jiital les maillons généraux. de la présidence lan la ban acte la posé buñ mën a wax ni càmbay ban ko faleeg léegi parce que nit ki boo koy jugé da nga koy jugé ci liñ ko dénk est-ce que mi ngi koy doxal baax na wala baaxul est-ce que ni mu ko yoree baax na le président de la république jël ko mu nekk homme de confiance am média yooyu ne Cheikh Omar Diagne mi lu tax mu dangereux te tey jii mu nekk ci wetu président de la république dem sax bay sous-entendre ne Cheikh Omar ak président danoo bokk ngëm-ngëm maanaam pour bëgg a dal ci Diomaye daluñu ci directement mais boo déggee ay wax day mel ne danoo bëgg a dal ci Cheikh Omar pour wan ni waa Touba wala waa Tivaouane waa Niassène ni Cheikh Omar ni muy doxalee Diomaye moo ci ànd parce que mooy loolu parce que avant ñuy falu. jomaay salafiste la gëmul tarixa gëmul sëriñ mais ñu gis jomaay dem présidence dem Touba gën ñoo nekk taalibe ci yar ga ci teggin nga ci waxin wa ak defin wa lépp lu ñu diggoon ci màggal gi comité d'organisation bi nee matal nañ ko mais Cheikh Omar c'est le maillon faible Cheikh Omar nag bu ko neexee gëm lu ko neex le ministre de l'intérieur Jean-Baptiste Tine la tudd moo gérer les cultes maanaam fii amuñu ministre bu ñu dénk diine mais diine ji dafa mel ne ci loxo ministre de l'intérieur la ko teg quatre-vingt-quinze pour cent des musulmans mais kan moo yor culte yi ba ñuy dem di def euh, li jëm ci CRD yi pour waajal màggal ak leneen ba ci toogaay bi ñu doon amal ci màggal gi di cérémonie officielle kan moo fa nekk du le ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur boobu est-ce que gëm na tarixa yi est-ce que jullit la pourquoi pourtant posé wul question boobu parce que c'est l'État kenn du xool ku mu doon kenn du xool moom mooy kan dañuy xool ni état am la fa représenté kon nan bàyyi yenn wax yi ak yenn manipulation yi di nga gars yi Cheikh Omar yi soxalu leen yitteelu leen bu demee ba Serigne bu sa Dieng naan di manipuler opinion bi xamul dama jox man bëgguma ki nax opinion bi mooy Cheikh Omar mi moom la moom la nguur gi teg ci digganteem ak Serigne si parce que c'est le moyen faible pour yàq diggante nguur gi ak sëriñ si alko Cheikh Omar jiitewul diine ca palais jiitewul leneen ca palais Cheikh Omar leen mooy généraux de la présidence maanaam ay matériel oto yay génn ak lu yun war a luyeeg lu nu war a lii loolu lan la joteeg diine lan la joteeg tarixa ba sëñ Mour bu sa jàng mun a bëgg def la ci bopp sénégalais yi parce que mere na Sonko gis na lu mu ko yàq ci mbiri Mélenchon wax na ko lu ne teg na lu ne ci kawam mënul jot ci Sonko léegi mu bëgg a yàq diggante Sonko Jomaay ak sëriñ si parce que ñoom liñ yaakaaroon amul parce que ñoom danoo yaakaar ni Sonko ak Jomaay bu ñu ñëwee duñ faale sëriñ si du leen sukkal du leen sujjoot du leen boole ci dara mais ñu gis ni tabaski ñëw ñu réussir ko màggal ñëw ñu réussir ko te noonu lay réussir incha allah gàmmuk leneen parce que réew mi mënuñu fi dem fii ak ànduñu ak tarixa yi. te booy gouverner da ngay gouverner avec la majorité mais nag dangay ngay jaboote ñëpp on est dans une république laïque nekkuñu ci république islamique encore une fois ñun bi ñuy fal ñu ay imam faluñu ay sëriñ danoo fal ay nit ñoo xam ne danoo jàpp ni mën nañu sàmmal suñu réew mën nañu ko téyel loolu dafa important léegi nag la personne de Cheikh umar Diagne loolu c'est autre chose gi nga Sénégal fii lu ne xew na bu ñu nax de Senghor nekkoon na fi suñu président du jullit pourtant ànd na nangoom vingt ans ci njekk mu dem Jean Collin ku xam Jean Collin xam na mboosóor mu ne def na ko ci réew mi Jean Collin moo doon organiser pèlerinage à la Mecque am na benn jamono Jean Collin moo doon organiser pèlerinage à la Mecque yooyu yëpp jaar na fi. te ñooñ duñu woon ay jullit gëmuñu woon diine ji gëmuñu woon sëriñ si mais pour pourquoi ñu bëgg a jaar ci Cheikh Omar parce que c'est le maillon faible Cheikh Omar nag bis bu fi defee naka sulul noonu war mu wax fi naka sulul noonu ñun duñ ko may dara mais ba jusqu'à présent de quoi fouetter un chat amu fi kon di jégalu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm El moo Modou Diouf Abdou Toba ak Ablaye ci 30 minutes chrono ak Fallou Omar Bun Khattab Gueye moo leen ko doon présenté beneen alxamis bu 21h jotee ci solution info TV yi ñu dellusiwaat.